suñu gan di euh, Seydina Issa Laye Diop moom mooy euh, président douzième gaynde egg na suñu gan euh, ñu ngi koy dalal léegi di ko nuyu di ko ziar Seydina Issa Laye Diop ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm. ñu ngi lay nuyu di la ziar. Mhm. atam di am mbégte encore bu rëy. Mhm. di accepter seen invitation. Mhm. di profiter ci occasion bi aussi di leen souhaiter joyeuse année. merci beaucoup euh, bonne heureuse année. Mhm. di ko souhaiter ci l'ensemble de vos collaborateurs yu nekk ci ci télé ak mhm. ci rajo bi ak le groupe. GFM mais di ko souhaiter exceptionnellement. monsieur le président Youssou Ndour. di ko féliciter encore une fois ci l'excellent travail qu'il est en mais surtout événement bu exceptionnel bu ñu à l'honneur de tout les et les jeunes. Mhm. Euh, de, ce pays. d'accord merci beaucoup Seydina Issa Laye Diop daanaka ñun ji xaw nañ laa jiitu tuuti ci waxtaan bi ndax ba ñu tàmbalee ba léegi ñu ngi waxtaan ci kan bi dañuy bàyyi Chérif rek mu door euh, laata ñuy ñëwaat fii ci plateau principal bi. waaw Issa information bi dab démb gaynde heure bi xëy na waroon na leen a fekk ba fu sam ñu ne am na ci ñaari cas Covid noo ko jógee xibaar bi ak dundee ko. ñu euh, ngi ko jotee avec parce que dañu xam les dispositions surtout sanitaires yi nga xam ni fédération jël na ko par l'entremise de sa commission médicale et à la tête duquel je crois docteur Ngom bi nga xam ne ay ñoom Fedor ñooñu ñëpp ñu ngi jël toutes les dispositions pour que équipe bi nekk dans d'excellentes conditions de préparation donc tey bi ñu déggee nouvelle bi vraiment jëlee ko ak surprise jëlee ko aussi ak. Euh, est-ce que war na la bett boo xoolee depuis le début du regroupement quand même dafa mel tanière bi tëjuwut y a des personnes extérieures jaxasoo beek at ku ne xam ne mbas mi bëggul jaxasoo. Euh, non war na ma bett nag ndax euh, je pense que fédération depuis année yëpp gis nañ aussi effort yi muy def améliorer capacité de gestion du groupe. Euh, souvent da nga doon sax critiquer la fédération ni dañoo bunkeriser équipe bi. Mhm. Euh, ñun nii par exemple deuxième gaynde euh, depuis bi groupement bi commencé ba léegi amaguñ saafanta bien que dana am ay. entraînement yoo xam ne c'est open mais saafante ak équipe bi je ne pense pas que ni foofu la war a mën jógee xam nga nag exactement fan la origine bi mais je vous j'avoue que ni eh, fédération mi ngi def ay efforts yu colossaux pour que équipe bi nekk ci dans d'excellentes conditions. mais li xew démb fekk na xëy na cas yi am ba pare mais li xew démb depuis bi ñu jógee seen hôtel dugg ci terre bi ba ñu duggee présidence yéen sax yéen a nga fa jaxasoo boobu aussi est-ce que méngoo na ak li contexte bi laaj. Euh, bon xam nga aussi yooyu yëpp disposition yooyu euh, lay médecins ñooy gën a siyee pour wax ne exactement ce qu'il doit faire euh, maintenant kenn ku ne ak domaine am je pense que. maintenant ah, mais am na loo xamante ni yee nañ ci nit ñi. mais effectivement ah. donc boobu ba léegi boo gisee les les joueurs les staff technique chaque fois ils sont bons ils sont masqués comme là ils sont leur masque maintenant nag quand y a une cérémonie comme ça bien évidemment souvent dina am ay échappé yoo xam ne doo ko mën a contrôler. Mhm. voilà. Mhm. Mhm. ayca Cheikh. waaw yaa ngi wax ni euh, euh, gars yi jël nañ ay dispositions mais est-ce que euh, d'après le chérif wax loolu la ñu gis parce que mettre l'équipe dans d'excellentes conditions ak tamit tëju pour bañ mbas dugg je pense que c'est deux choses diamétralement opposées comme ni ko sëñ bi waxee voyage visitaire bi saafonte yi jour yi ni ñuy jaxasoo seen biir tout ça parce que loolu waroon nañ ko mën a moytu te je pense que victoire bu njëkk bu Sénégal c'était d'arriver à Bafoussam sans cas positif. bon euh, je pense que euh, affaire bi daanaka épargne wul ñu bari ah même <laughs> au niveau de Cameroun ñu fa nekk sa gis nga leen équipe Cameroun si moom am na ay cas cela ne veut pas dire que Sénégal dafa war am ay cas. je suis en phase avec vous que ñun suñu premier combat mu doon lutter ba loolu may dal suñu ba pare egsi egsi ba fa sam selon notre programme maintenant c'est des cas isolés il y a des gens qui ont ñoo xam ne am nañ Covid bi te ñëwuñu woon Sénégal ils étaient dans leur perspective yooyu yëpp aussi c'est des cas yoo xam ne des fois vous ne les maîtrisez pas du mm-hmm. président jox na leen euh, raay réew mi mm-hmm. euh, wax leen ni bugguñu lenn lu dul coupe bi ñëw majeure partie sénégalais yi aussi ne nañu sonn nañu ci feete ay defet te bu ñuy feete defet yi tamit yéen douzième gaynde yéen nekk ci première plan ba di tëgg ko fecc te dañoo dóor ba ñu tëddal suñu bopp bii yoon ndax ndax ndax yéen douzième gaynde mhm. exigence de coupe boobu ci ngeen aligné wu ci président wala déet mais bien sûr <clears throat> douzième gaynde c'est les seize millions de Sénégalais et à la tête duquel son excellence de président Macky Sall bi nga xam ne mooy premier douzième gaynde donc li mu ñu wax lépp li muy wax dafa ñuy engagé bien évidemment que la coupe nag kenn du ko décréter ça se gagne ci terrain bi donc ça nécessite d'abord la mobilisation humaine de tout un chacun mais sacrifice détermination ànd de guerre boo xam ni jour yi ñoo ko war a am ci terrain bi parce que aussi euh, kenn du koy def am fi muy yem l'État a maîtrisé la logistique en termes de qualité en termes de quantité fédération bi créé na ay conditions pour l'équipe nekk dans d'excellentes condition de préparation et de participation yóbbu leen bu am solo avec l'accompagnement du ministère des sports maintenant lu des l'engagement la détermination des joueurs donc foofu aussi y a la responsabilité individuelle des joueurs l'entraîneur euh, monsieur Aliou Cissé qui fait partie des trente meilleurs au monde donc il a le mérite de choisir les trente meilleurs les trente meilleurs du moment les trente Sénégalais les trente meilleurs Sénégalais du moment maintenant chaque jour doit faire de telle sorte di nga war a am mérite bi nga war a am nga ni <coughs> Aliou Cissé sélection yi dama ko war a mérité mm. en quoi faisant su ma duggee ci terrain bi xam ni y a 17 millions derrière moi mm. et que je dois me battre pour coupe bi mu yóbbu ko Sénégal waaw yéen tamit yéen douzième gaynde lan moo ci seen wàll ci coupe d'Afrique bi euh, yàgg ngeen dem coupe d'Afrique euh, yàgg nañ fa dégg ay coow surtout des fois coow xaalis <coughs> est-ce que ci coupe d'Afrique bi ñu jëm yéen a ngi waajal ak ban taxawaay ngeen fa fas yéene am bon douzième gaynde effectivement euh, sunu rôle musul dañ mooy Euh, se mobiliser derrière l'équipe nationale du Sénégal les galvaniser et les pousser vers la victoire c'est vrai que nag victoire ba la ñu ciy daaw ah, mais toujours dafa nekk exigence suñu mais si boobu dynamique lañ nekk ba léegi muy d'abord mobiliser tous les Sénégalais derrière l'équipe et c'est extrêmement important d'où l'importance bi ñu def keroog le lancement officiel de la plateforme de mobilisation Manko wuti ndam li mooy Sénégal bu soxlaa képp doomam bu fi nekk war naa fàtt sa bopp ndax réew mi. on n'a pas senti cet engouement ay sotti mi ko doon wax sànq autour de l' équipe nationale comme la veille ni ñu ko doon gisee marché yi ñuy jaay mooy équipe nationale ak euh, lépp loo xamante ni effigie équipe nationale. ren gisuñu ko dafa mel ni kon. ak ak waye waye <laughs> seen a tas. non il faut comprendre une chose xam nga temps yi ñoom El Hadj ña fa nekkoon. star la ñu woon ñoo xam ni dañ doon gérer seen seen euh, maanaam seen star nga doon gérer El Hadj Moussa ñëw Sénégal cëpp fet la ñëpp topp ko mais suñu jeunes yi ñëw fii ay jeunes lañ yoo xam ni dañoo am beneen culture ils sont timides et ñu bari ñoo xam ni fee lañ juddoo donc yooyu daf ciy joué beneen bi aussi mooy moment bi. yow si le fait que 2002 euh, moo tax dama lay xamal ne si. mais chance bi ñu am mooy dañu ñëw fekk ñëpp di seetaan. nekk nii dafa nekk moment boo xam ne dafa propice fi janvier fi kaan bi nekk dafa tombé dëkk bi nekk ci ay moment électoral yoo xam ne tey la politique dafa siis dara du bokk ak moom am doole teg ci. mais cela ne veut pas dire que y' a pas d' engouement. mais actuellement nii beneen bi. football du football Sénégal. football rek beneen bi mooy ah, Sénégal. pour ñu gis ko foog compétition bi commencé aussi. mais exactement ah, loolu mooy problème parce que beneen bi mooy ñu euh, qualifié premier tour. qualifié CAN ce n'est plus loo xam ne dañ koy on on doit pas être euphorique pour ça. parce que ñun léegi dootul dootul ali boo demee ba nekk première équipe <laughs> africaine. depuis trois ans nga nekk à la tête c'est un statut. maintenant donc loolu ce n'est plus un challenge. xam nga la mooy challenge mooy indi ko bi teg comme l'a dit ah. son excellence le président Macky Sall le premier ah, ah, sama question da ngeen di dem Cameroun yéen douzième gaynde wala ak ci yan anam ngeen di demee parce que ñaata ñaata ñooy dem parce que dañoo nekk ci euh, contexte boo xam ne ñuy dem du ordinaire ndax am ngeen moyens yu ngeen demee hmm. non ak ku leen di yóbbu xam nga la douzième gaynde a jamais eu les moyens de sa politique c'est pourquoi nous avons toujours appliqué la politique de no moyens je te dis que moment bi ñu nekk nii nous sommes en train de mobiliser des fonds pour non seulement aller à Bafoussam mais pour maximiser nos chances parce que cette équipe là comment? a besoin de tout le monde comment comment bon mobiliser des fonds c'est d'abord remercier d'abord ñu ngi remercier son excellence le président Macky Sall qui a mis à notre disposition une subvention de 30 millions ah. déjà pour un budget on a un budget de deux cent war a wala ku nekk nag trente millions. non ku nekk non ñun trente millions ñu leen di jox na leen beneen man. non tudd leen Allez Casa te ku ñu ne maa ko wuti ndam li war leen fay nekk sax problème mu supporter di am. non problème supporter mënul am xam nga problème sax mënul am. Euh, j'ai toujours dit. <laughs> man xam nga dama ci xamul dara damay laajte rek. mais mais 30 millions pour tàcc dong la wala kenn na doyul am solo ci football rek noonu tey jox la benn exemple TFM li muy rëy rëy rëy rëy. kii bale bu ñëw doon foofu doo leen fi toog et tellement que il est important bale laa bale bu bu leen ñëwul bu xëy suul yéen di ngeen ko sentir yéen parce que boo leen duggee salle bi nga xam ne fii kenn balewu ko c' est comme ça les supporters c' est comme Youssou Ndour bu demoon bés wala mu demoon arena j'ai sans public bàyyi ma àggati non bàyyi ma àggati par exemple li wax l'importance moo tax ma c' est comme Youssou Ndour bu demoon arena l' équipe qui joue sans supporter noonu la mel maintenant nu nous sommes en train de nous mobiliser moo tax ma la expliquer ce que nous voulons amener le maximum de supporters maintenant ça demande des moyens moo tax ñu sommes en train de nous mobiliser de voir quelle voie et moyen pour ñu mën a am le maximum pour mën a mobiliser le budget pour yóbbu le maximum de Sénégal l'équipe en a besoin certes dina am ñu jógee fii mais dina am ñi nga xam ne dañ fa fekk fa la ay Sénégal ñu jóge fii ñu ngi compte déjà deux cent personnes ñun ñun bëgg moom mobiliser au deuxième sànq yaa ngi may expliquer affaire manko nous avons dit le Sénégal mooy li nga xam ni dañ ko bokk te mën ñu ko seddoo Chérif fii benn ale moo am quand le Sénégal joue le seul ale qui vaille c'est ale Sénégal. ale NGB c'est quand NGB joue ale HLM c'est quand HLM joue mais quand le Sénégal joue benn ale moo am muy ale Sénégal loolu moo tax ñu déclenché Sénégal manko uti ndam li leneen lu am rek xaajaloo uti ndam lay tudd. ci yenn critère ngeen di teg na euh, ngeen di tànnee ñi nga xam ne ñoom ñoo war a dem ak ndax fédération yaa ngi wax président jox na leen ndax fédération daf leen di jox xaalis xaalis bi ci des fan ngeen koy wuti. waaw d' abord première chose fi ñu mën suñu xaalis mooy ñun. si municipal ñun dañuy cotiser suñu bopp. chaque mois wala. dañuy cotiser chaque mois. ok dañuy cotiser actuellement am ngeen ñaata. yéen li xaalis di seen ngeen fi ñu ne fii. ñun ñu ngi en fin d'année actuellement suñu caisse yi on a mais mais mais Seydina Seydina. <laughs> bàyyi ma àggali. non non ko tuuti. ah coow xam nga donc loolu la quoi benn deuxièmement ñu compter sur les sponsors ak les partenaires stratégiques yi nga xam ne mooy état du Sénégal mm-hmm. kii à chaque fois ñu def requête ñu répondre positivement à nos requêtes benn après y a les yi nga xam ni xam nañ ni ñoom fi ñu nekk war nañ jàppale équipe bi mais comme mënuñoo dem képp kuy dem ko jàppale équipe bi dinañ la jàppale nga dem à être plus performants dans le cadre de l'accompagnement. yéenay daggal seen bopp billet wala état bi moo leen di jàppale moo ñuy daggal billet. léegi léegi man sëñ ah, mais pour mais pour un groupe de 45 supporters. ok voilà donc loolu dafa ndaw. parce que tey moment bi ñuy wax ni. la Guinée-Conakry il est en train de mobiliser 300 supporters pour la CAN. Euh, donc ñun li ñu bëgg a def nii. mooy on n'a pas les moyens de l'équipe mais nous voulons mobiliser minimum 200 supporters. Seydina Seydina <laughs> eh, eh, Seydina xam nga ñii dañu xaw a fan tuuti du ñu man maa mën a wax lu bëri ndax tey. waaw la léegi léegi Seydina dafa am lu ma la bëgg a laaj. Euh, d'abord euh, euh, xam naa da nga ubbi la ndax fàtte nga rappelé Ablaye Thiam Thiam Gaye bi nga xam ne ah, Sénégal mi ngi koy tout à fait ndax defe naa douzième Gaye bu ko Sénégalais yi xamee. c'est un symbole la moom la moom c'est le c'est vraiment la mascotte. c'est l'âme de l'équipe nationale du Sénégal ñuy ñaan yàlla yàlla na ko. yàlla teeru sa léegi man euh, man naa ngi découvrir tey yoo xam ne franchement wax dëgg yàlla xam nga nag sob ma nag dama sport xaw ma ci dara duma ma du ma moo tax ma biir bi rek mais pataayu fu ne mais maa ngi dégg tey yoo xam ne su ma ko dégg man xaw ma woon ne euh, douzième gaynde euh, presque cet une vocation liggéey la y a un salaire y a ba ngeen ba ngeen subventionné Macky Sall yëg de 30 millions danoo pauvre franc jox leen ko yéen Euh, nga xam ne wax dëgg yàlla euh, dëkk dëkk bu eh, may ma may ma Cheikh génn ci loolu <laughs> dara Cheikh Cheikh génn ci may ma rek du dara ci waaye man boobu waaye léegi ñii ñi dañu napp di lekk dina non loolu waru la choqué waru la mais da ngeen nag moom <laughs> léegi <clears throat> parce que dëkk bu ngeen dem dëkk bu bépp dëkk boo xam ne équipe euh, nationale du Sénégal ma ngi fay dem ay sénégalais ña nga fax déjà waaw léegi may ma rek ma ñëw léegi yéen ñii ngeen d'accord vous avez le mérite ngeen jóge fii ngeen dem bàyyi peut-être ci seen activité yi nangam euh, man comprendre naa ñu motiver leen tuuti mais quant à jël lu doy na 30 millions jébbal leen ko te je viens de comprendre que 30 millions yooyu yamu ca am nga léegi ay bonne volonté yoo xam ne ay sponsor ay ay mécènes ak yooyu kon kaña bi euh, euh, ça va aller. mais Aïssatou 30 millions bëriwul de Aïssatou. Euh, bëri na si kuy dem ba Cameroun ay centaines. naatu tey riche naatu tey riche war a ndékki war a faj war a dagg bi léegi xaaral rek ah non béy non non nee na béy bokk si béy mag saa ma leen tamit. non non non non pour 45 personnes. waaw léegi xaaral biy dugg stade la waaw léegi xaaral non damay laaj <laughs> maa ngi kii laay laaj. Ah, en fait toi c'est parfait ma ma ma connaissance. je pose une question en tant que profane donc. Euh, cette cette cagnotte là qui va aller crescendo léegi ma la bëgg a xam nee nga léegi yow di nga yóbbu 200 personnes maintenant sànq Chérif wax na lu am solo euh, euh, xaalis bëggul coow mais ñun naka la ñu mën a xamee yéen ñi ngeen di yóbbu. yan critères ngeen yóbboo supporters yooyu naka ngeen koy séddalee bi ngeen demee xaalis bi que vraiment parce que sincèrement moi je trouve quand même hallucinant. les différentes rubriques ay seetu dafa bëgg lu tàcc la nii Malick Malick Malick aka bàyyi aka dañ bàyyi léegi Seydina mu tontu Malick lañ bàyyi Seydina mu tontu parce que c'est lui l'invité quand même aka Seydina waaw ok Aïssatou Aïssatou lu mu lay laaj mooy xaalis bi seen budget bi Malick non Malick non ñoom yow lañ posé question bàyyi dama ko koy leeral la bàyyi invité bi tontu xam nga ay sarax mi ngi jeex moom la ñuy dama koy leeral laaj bi non xam nga li nga koy leeral man mën naa ko waaw léegi am nga budget. ba amee ah, budget bi dërëm bu ne wax ñu fu mu jëm. fu muy jëm lan la. ko mu répondre. 30 millions de francs dañ ko bàyyi euh, ah. pense que question boobu dafa neex a répondre. Mhm. mathématiquement comme nee nga doo doo profane nga. <laughs> donc dama la wax rek léegi question boobu am na beneen question bu nga xam ne ko toxalee léegi bu trouver question bi réponse bi mën ngaa trouver bi mooy. Mhm. fan la Macky Sall teg war a jël benn xaalis bu toll noonu. di ko def subvention à la presse. moo ma jaaxal man ma ala lan ADD du benn. non mais non. ADD du ay may ko mu eggalee rek may ko mu eggalee Aïssatou. non bàyyi ma Aïssatou s'il te plaît waaw mais comparaison euh, malheureuse. yow ñu yónnee si sa yéen nga dem tàccu rek. et puis vous allez prendre un congé d'un mois. un congé payé. ñu ngi fay leen 30 millions ngeen dem toog pour tàccu dem. Aïssa si tàccu la bàyyi ko mu eggal parce que tuure si moins de 5 minutes quand même. Aïssa bàyyi ko mu eggal s'il te plaît. tàccu ñu fay la 30 millions. mais Aïssa c'est poussière. non il faut arrêter. waaw mais non mais. mais man ndax. waaw mais Aïssa rus ma ci nag ngir yàlla. Aïssa rus ma ci nag ngir yàlla. sëñ Aïssa sëñ Aïssa Aïssa waa tontul. Aïssa goro moo la wax non non goro moo Seydina retire retire la comparaison parce que ça on ne laisse pas passer ça non je ne retire pas non non non on ne laisse pas passer ça on ne peut pas comparer des douze hommes à la presse quand même loolu quand même c'est non non non ko bàyyi. non non non je ne sais pas. Elage Malick. ñoom ñooy doyen plateau bi ngir yàlla ak yonent bi rus leen ñu ñun seen rakk yi yërëm leen ñu bàyyi leen Seydina mu tontu en plus il nous reste en plus il nous reste trois minutes non mënuñoo nekk pour pas comparer douzième gaynde à la presse quand même on ne peut pas laisser passer ça sur un plateau. on peut pas tout le temps. Eh. non non non non. c'est mon ami mais il y choses qu'on ne laisse personne comparer des douzième gaynde à la presse ça c'est manquer de respect à la presse nationale non non non waxal leneen non plus sa budget bi moo gën non mais c'est même waa ANPS journaliste yi dem na leen subventionné da leen war sinon je vais arrêter l'émission tout de ah, suite mu bàyyi mu ñëw ci météo bi nag ci li ko rek mais Aïcha Seydina Issa je pense que TFM Tout le monde vous respecte par votre sens de devoir et de responsabilité avec laquelle vous faites vos émissions. Tout le monde vous respecte. Mais aussi, ayez l'amabilité de respecter les gens que vous invitez. Au moins, vous leur posez question. Mais baal ma répondre. Mais quand même, Aïssatou dafa poser question bu am importance. ma ni ko su fekkee dafa bëgg teg douzième gaynde ne mérite pas la subvention de l'État fan la ko war mën a teg. ba ni kon la presse je dis eh Malick je retire mes mots mais on te laisse pas, mais laisse pas Malick, s'il te plaît, bàyyi ko mu eggali dafa am lu ñuy wax subvention à la presse. mais exactement c'est pas le plus important. mais ce que nous faisons nous. tout ce que nous avons c'est pas parce que on a mis des mais c'est parce que on a négocié. donc c'est ça le problème c'est subvention ak donc donc ñun li ñuy def. voilà voilà ñëwal ci laaj bi. voilà donc lala moo tax. bàyyi leen ko mu répondre bàyyi leen ko mu répondre tàcc boobu aussi day encouragé. pour ñu tàcc non rek tàcc da ngeen a bàyyi. damaa bëgg Aïssatou non Aïssatou foofu ma xamal Aïssatou Aïssatou s'il vous plaît vraiment Aïssatou. àggale Aïssatou waaye yow li ma def mënoo ko. Aïssatou baal ma àggale. li ma def mënoo ko. mais li ma bëgg ko yow tamit Aïssatou. voilà xam nga dama la. gis nga ces gens que vous voyez là ñuy sol ils sont autant responsables que vous que vous êtes que vous êtes là c'est des détenteurs de société Aïssatou moi qui vous parle je suis détenteur de société qui emploie soixante-dix personnes. ki ku may fay ki gën a néew salaire il a cent vingt mille francs par mois moi Issa Laye Diop. et moi gën a tuuti ay ndomba tànk si douzième gaynde am xam ne c' est des professeurs d' pas parce que ce n'est c' est pas des gens qui n'ont rien à faire parce que ils ont compris que ils sont de vivre leur passion mais ils sont en encore de vivre moo ñu gën a yitteel voilà dem pour gagner coupe bi naka la mën a pour gagner affaire xaalis c'est important parce que tey moo ñu war permettre ñu mën a def li war a def nous avons un budget de 200 millions. Mm -hmm. okay. que nous sommes en train de vouloir mobiliser. Mm -hmm. Nous remercions encore son président Macky Sall qui a disposition. Mm millions. et c'est peu. et car et c'est peu et 45 billets yoo xam ne dañu koy jàppale kooku waajal nañu. léegi li mel noonu nañu ñëw ku ci grand sportif di koy lancer un appel mu jàppale le douzième Gaïndé pour maximiser les parce que ces lions là en besoin le capitaine en a parlé quand le le capitaine est là France ñëw à la veille des matchs ce qu'il demande il demande pas la presse de venir en nombre il demande pas les autorités de venir en nombre il demande le douzième Gaïndé de venir en nombre et les pousser. parce que ils ont besoin de cette. merci Chérif. Chérif Chérif Chérif. ñu yëngale ku mel ni mais mais test test. yi. Hmm. du léegi lañ koy def xam nga bi commencé ba léegi dañu su suñuy comité de supporters en contre la Covid agir en termes de sensibilisation agir en termes de don de soi jël suñu xaalis di sensibiliser jënd ay masques ay dons di ko joxe pour que nit ñi bañ am Covid kon kooku kenn duñu wax dama dañ leen di félicité ah, ah, que bi ah, leen di félicité. waaw votre engagement patriotique kenn mettre ko en cause vous êtes de vrais patriotes vous vous pour le pays ça on vous le ngeen dem tamit di ngeen fa sigil Sénégal. ba ñu jox leen ay raaya ci ni ngeen ci di supporter. ak ni ngeen di entretenir infrastructure. loolu dañ leen ci félicité. encore une fois on ne manque pas de respect au douzième gaynde on vous respecte beaucoup <laughs> mais a def ñun duñ ko woon bàyyi. non Marcel de boucler voilà euh, euh, pied dans l' aspect sportif. yéen waa 12e Gaïndé naka ngeen jàngatee euh, Ismaïla Sarr mi nga xamante ne contre vents et marées on l'a quand convoqué dans le groupe. est-ce que itam absence su Krépin Diatta bi du doon forfait euh, Kalidou Koulibaly peut-être qu'il jouera pas les phases de poule Euh, il jouera pas les phases de poule xam naa deuxième tour bi lay nar a euh, naka ngeen jàngatee loolu et puis euh, une autre question hein, sur le plan local ban taxawaay tey supporters yu mel ni yéen ngeen am ci championnat local bi parce que xam na ni itam ferveur ak effervescence ci championnat local c'est très très important ngir fexe ba football national bi mën cee mën ce jëriñoo. Mm-hmm. ok que moment de tous vraiment cas Ismaïla Sarr ak euh, Kalidou Koulibaly daf ñuy inquiété parce que ñoom ñëpp chacun de kenn ku gis nañ li muy apporter équipe bi donc nañ ñun nous avons besoin tout le monde tout le monde est mm-hmm. aussi on parle d'une maanaam tey équipe la c'est vrai que nag ku ñëwul dañ ko sentir mais c'est pas parce que Ismaïla Sarr ñëwul que Kalidou Koulibaly ñëwul le Sénégal ne doit pas rester le Sénégal. Mm-hmm. parce que Ismaïla Sarr nekk en très grande forme. ñu yóbbu ci terrain bi am carte rouge. tout à fait. qu'est-ce que nous allons faire en ce donc nous avons nous voulons mu am ce talent de solidarité bu deuxième ngay na créé d'abord mu implique mu impacté ci équipe bi nga xam ni tey kenn ku manqué ci équipe bi. dina am cette spécialité ba kenn ñëw remplacer ko. Mm-hmm. donc mooy nag li ñuy mm-hmm. encore mooy ñi blessé wu ñëpp rétablir. Mm-hmm. ba ñu am vraiment les 100 pour cent. danoo danoo danoo. beneen bi mooy l' implication des le douzième gaynde. c' une association des associations des supporters le douzième gaynde il est pour les supporters ce le CNOSS est pour les fédérations c' est à dire ñun nous que vous voyez dañu nekk ci ay ay AS Pikine ale ay ay HLM ay ñëw ñëpp donc ñëpp kenn ku ci nekk da ngaa ci club ñëw formé douzième ngeen su su Sénégal joue ñu ñooy nekk ci club bi kañ ngeen di dem pour pour pour terminer donc le Sénégal il joue le 10 on doit être là-bas avant en train de mobiliser les fonds pour amener le maximum de Sénégalais et encore une fois mm-hmm. ñuy demander encore lu waxoon Sénégal manque wutu ndam de ce Sénégal la daf ñu fekk fi ñu juddoo fi yaroo fi màgg fi fekk fi baax baax fekk ñu fi mu jox ñu lépp éducation santé sécurité tey bu doon nit la kenn ku ci nekk si ñun amel na ko ñu teel. Mhm. donc maman bi elle a besoin de ses fils. nous appelons ce que tout le soit derrière l'équipe. Mhm. defal ko ñaan. Mhm. yàlla defal ñu ndam ndam boo ànd ak jàmm. incha allah ñun ñëpp loolu la ñuy ñaan merci beaucoup Seydina Issa Laye Diop sant na gërëm na bu baax a baax. man man man dina fi ñëw Seydina Issa de ça quoi. merci merci beaucoup jërëjëf El Hadj Malick ñu jàll ci une l'observateur ak record.